internet Sénégal tey ñu ngi fii euh, di dalal un grand rapport une légende vivante du hip-hop sénégalais Daddy Bib Thione qui a écrit euh, l'une des plus belles pages du rap sénégalais tey moom nañuy dalal fii ci Sénégal Daddy Bib Thione yi namoon nañ la foo ne woon waaw aouzu billahi min sheytaan rajim bismillah salaatu wasalaam ala seydina muhammad sallallahu jërëjëfe Baye jaaraama Baye Cheikh Mamour comme ma koy faral di defee waa di wax ni euh, maa ngi sant si dalal bi ngeen may kii ak invitation bi donc di wax ni euh, maa ngi woon euh, États-Unis benn période comme ni ma koy faral di defee dem daani doole ñëwaat jéem a xool nu may investir Sénégal wala ni ñuy def dara pour Sénégal donc maa ngi woon USA quoi d'accord macha allah tey bu ñu la doon laaj Daddy Bibson la mooy sa actualité loo ñuy wax. waa sama actualité lenn lu dul euh, ñibbi si Sénégal war a def affaire yu bëri nekk si ay projet à la fois ni économique ak tamit euh, culturel tamit quoi donc sama actualité du lenn lu dul euh, ñëw investir si dëkk bi mais tamit ñëw am benn projet ak Rapadio. Mhm. ñu war a def. Euh, beneen euh, be benn album boo xam ni du ñun ñoo koy def mais ñun ñoo nekk ci ginnaaw dinañ ci rap mais du ñun ñooy def lépp quoi donc rap rajo nga new look mais du sax new look new generation la ko donc loolu mooy samay tànk fii mais tamit bon ñëw tamit bokk ci combat baaw Sénégal tamit quoi <laughs> comme ni ma koy defee rek. macha allah dañu dañoo gis ni que da nga gëj a produire sur les scènes. sénégalaise est-ce que da nga mettre en stand-by le waa wala. waaw xam nga dama ne woon bu ma génnee euh, treize album solo dama arrêté hip hop bi donc loolu la demee woon donc ma ni même bu may arrêté du ma bàyyi musique nag mais Dari Bibson le lu le l'artiste Dari Bibson du moom mooy génne génnete album mun na nekk beneen tour mun na nekk yeneen tour moo tax bi mu ñëwee j'ai sorti un album spirituel tudd Insa Ibn Mariama ba maa ngi si am pseudo wu Tijani donc euh, si lancé boobu laa nekk mais bon gëj naa produire nag sur scène gëj naa jouer concert depuis euh, euh, sama dernier sama album dernier album solo mooy de légende bi c'était à Thiès donc tamit loolu la ko mais bon voilà ñoo ngi ñëw ci je crois que ak Rapadio bi dinañu amaat occasion di ñu gisaat sur scène quoi. ah ñu gis ni que da nga commencer explorer une nouvelle de. musique mhm. muy le, le rap spirituel mhm. pourquoi nga jël choix wu euh, tourner wu vers cette nouvelle tendance waaw man dama gis ni ni lépp loo gis dafay jeex ba mu des spiritualité ba mu des yàlla donc euh, euh, loo xam ni maanaam loo xam ni du jeex mukk je crois que nii loolu waroo tàqalikook moom ko donc loolu moom moo tax nag ma ni attends dem nañ ba ba am yenn âge yi je crois que y a les jeunes ñoom ñoo porté flambeau hip hop bi léegi donc ñun mënatuñ nekk di def ko comme ñu doon def il y a quelques années de cela il y ay trente ans wala ay lu ko ëpp sax ko donc man personnellement man maa jël choix wu dugga gën a accentuer sama message ci dans la spiritualité parce que foofu rek defe naa moom muy mujj et puis je crois que ni loolu rek mooy dëgg euh, parti politique yëpp ay daanu mouvement yëpp ay daanu ba mu des mouvement wu l'islam moom rek a daanu donc euh, moom moo tax ma ne xaaral ma porté combat boobu et puis euh, voilà boo xam ni man revendiqué wu ma ko sax mais dama ko nekk parce que ma judd si famille sama maam nekk Serigne Cheikh Yérim Ndoumane Seck donc nekk mu xadam bu ngand si tarixa xaadir donc man amul loo xam dama ko réclamé si biir mais dama jël sama wàll maa dégg donc man mënuma défendre leneen lu dul loolu donc boo gisee sama naqari deret beeg sama franc parler beeg sama dëggu beeg yi gars yi di wax yépp lu lu gars yi wax rek si foofu laa ko xuusee ko parce que mun nga nax ay nit si jamono yu ndaw mais naxanoo ñëpp moom si jamono yëpp amul te loolu l'islam rek a ko defagum instant yi ku fi ñëpp a naxaate ba mu des l'islam Seydina Mohamed rek a naxaatewul waa ak ñi nga xam ni mel nañ ni moom wala ñi nga xam ni jege nañ ko wala ñi nga xam ni ay jegewaalam lañ moo tax booy julli sax da ngay julli si moom julli tam si saxaabaam yeeg ñooñam yi waaw ñu mel ni ay Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu ay ay sunu maam El Hadj Malick si radiallahu taala ñëpp waaw sunu maamu Thierno Omar Foutiou Tall ñooñu noonu booy référé wu si ñoom doo juum donc loolu moo tax man munu ma am benn référence lu loolu loolu moo tax munu ma def beneen combat bu dul combat boobu nga xam ne man dañ ma si nàmpal. Mm, waaw mais est-ce que rap boobu euh, c'est une musique rentable la rap spirituel le rap religieux est-ce que yaa ngi ci gis sa bopp bi nga génnee sa album Insa Ibnu Mariam bi. waaw ouais, y a beaucoup de streaming ak euh, téléchargement si sur si internet parce que léegi la musique se vend sur sur ay ça se vend très bien sur le net et puis man mooy li may faral di wax man damay def musique benn bu dul dara vocation la passion la lu ma si fekk si tamit ma jël ko donc mooy loolu parce que musique bi ñun yàgg nañu dundal yàgg nañ ci am lu nekk teraanga bu nekk affaire yooyu bu ñu génnee album ñaari nit déglu ko sax te mu nekk message yoo xam ne day wax si yàlla ñun ñoo ngi si sant yàlla parce que au moins ñaari nit dégg nañ si am nañ jaar nañ euh, euh, dékku nañ si con euh, conscientisation spirituelle bi donc ñun loolu moom mooy suñu kii bu fekkee sax benn nit la sax d'accord na moo gën ñuy def ay cent mille nit di ñu déglu di ñu déglu si yoon boo xam ni yàlla gërëmu ko wala si ay wax yoo xam ni tegginewul wala wax yoo xam ni ëllëg bu ñu la koy tegalaatee di nga rus quoi donc je crois que ñoo ngi si gis suñu bopp sino bu woon loolu duñ ko def et puis ñun pour man parce que lépp en fait. lépp lépp lépp lu ñuy def parce que même bu ñu enregistré euh, demuñu studio pour enregistrer ñun ñoo am suñu matériel suñu gàll def ko suñu biir kër di si foo di ci waxtaan am ay ay sentiment am ay sensation ay inspiration ñu taal suñu studio ñooy fay suñu courant bopp defal suñu bopp li ñu bëgg a def yëpp quoi donc demuñu studio kenn wala fay ñu kenn pour ñu defal leen à part des petits des petits réglages yoo xam ni mënul ñàkk quoi te bu ñu ko mënoon defal suñu bopp sax ñoo koy donc ñun ñàkkuñu ci dara comprendre donc euh, lépp rek si jihaad jihaad yoonu jihaad bi lañ ah, dañoo gis ni que yéen ancienne génération bi ñu yooyee ay school. da ngeen xaw a raax sur la scène génnatoo leen ay production mm-hmm. dematoo leen sur les sur les scènes est-ce que du nouvelle génération bi da leen damee le pion loolu moo tax euh, mm. feeñatoo leen fenn. non je trouve pas au contraire. parce que booy yi ñoo xew nag booy yi nañuy gën a déglu waaw mais jamono ci nekk day am ñuy xew tamit <laughs> mais bon boo xoolee booy yi ñoom la ñuy gën a déglu mais est ce que booy yi ñooy gën a tourné kay daara ji est ce que ñooy gën a tourné ay Matador est ce que a tourné kay xumaan est ce que ñooy gën a tourné kay awadi est ce que ñooy gën a tourné ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni ñoo ngi bitim réew di di def seen ay si liggéey no booy seen seen liggéey bi yëpp Sénégal la yam comprendre da ngay commencé génn léegi. non booy kenn def si festival en Europe. ñoom jib ñu ngi génn ñoom gàddu ñu ngi génn. waaw mais c' est des yoo xam ne sénégalais yi koy organisé foofu. Samba mi ngi actuellement non non c' booy. Mhm. mais du dañ ciy waxtaan loolu. c' est des yoo xam ne ay sénégalais ñoo koy organisé keroog ak Simon on avait eu l' occasion d' en parler il y avait Ngaka il y avait Elzo Diam Dong et tout ça ñoom loolu mooy problème bi lan moo tax ñoom booy Gambie sax dematuñ fa demuñu fa. alors que ñun suñu jamono remplissait ay stade Luxor dañu rempli ay stade biir Gambie dañ doon dem yeneen dëkk di def ay festival devant 35 000 40 000 personnes donc booy excès guñu foofu ko je crois que booy seen audience yëpp Sénégal la yam quoi et ñun ay mag lañ léegi kon li ma la ko wax booy seen jamono lañ def seen jamono comprendre nga moo ngi mel ni tey jii ni Youssou Ndour il produit de moins en moins de spectacle que ay Sidi Diop ay ay comment s'appelle l'autre Wally affaire noonu la demee ku si nekk ak sa jamono et on peut pas à rapper jusqu'à 60 ans. mais bu fekkee booy euh, seen objectif mooy. non du ñu ay booy ay jeunes frères. waaw <laughs> bu fekkee ñoom seen objectif mooy euh, produire de sorte des euh, des productions di ci am xaalis est-ce que te ñoom ñu ngi ci gis seen bopp bu baax. parce que mais yow yow ñaar ñaari arti ñetti artistes nga ma wax sànq ba léegi. dip nga may wax te ñëpp ñuy wax loolu la ñuy wax ah, dip lan lay wax Ngaaka Blindé ak. Euh, euh, beneen boy Samba ñoom wan lyrique ñu ngi fi ñoom. waaw mais ñëpp concert yi may gis yëpp ñooñu ngay gis ñetti ñetti artistes yooyu. mais est-ce que tamit. de te c'est des c'est des frères ils ont du dem tamit ci concert yi dina tax pour nga xàmmee leen ñoom ñëpp. non déggatoo concert au Sénégal tey si suba on avait un groupe WhatsApp si loolu lañ doon waxtaan. yow ñaata yoon ngay dégg concert si Sénégal par weer bëreetul. Mm. non qu'on le qu'on le dise ou non xam nga ñun suñu jamono yi si ñuy poñe dëggantaan chaque semaine da nga doon dégg ay cinq 6 concert day fees dell. comme léegi il va falloir nga boole dip ak euh, beneen booy bi Samba pour nga mun a am dara biir grand théâtre wala nga boole euh, Ngaaka ak beneen artiste pour nga am dara ñoo ne le faisait pas ñu leen def ay concert je me la dernière fois mooy mujjee jouer Ravin borom ravin bi ñëw ni ma lii da gëj na fees depuis nongolo waaw parce que booy balaa may ñëw sax y avait plus plus de mille 2000 xaw ma 1000 et quelques tickets vendus donc dama lay wax ni ñun ñun à notre époque on vivait carrément de l'art et puis doon ñun rek daf daf sax y avait plus de on comptait plus de 300 groupes à Dakar rien qu'à Dakar léegi compter groupe yi à Dakar bëreetul il te parle ay 4 5 artistes 6 artistes lañ lay wax donc sànq loolu waxtaan ci benn groupe WhatsApp ñuy lan mooy doon solution lan mooy solution bi parce que y a que 4 5 artistes qui Sénégal ñi si des yëpp ils font même plus de rap ils font de la naija music mais rap lañ ko tuddee te nigérian yi ko créé sax tuddeewuñ ko rap naija lañ koy woowee wala afrobeat c'est un peu dommage quoi. mais comme pour yow lan moo waxal lan moo indi décadence bi rap sénégalais am. mais balaa may balaa may déglu ay rap yoo xam ne amul message ma dem ma déglu benn benn waajo ñu ma de càmb euh, conk mu tudd kooku na cung. Euh, euh, comment ça s'appelle Bastion ma déglu Bastion ah ma déglu kooku wala ma déglu beneen Wally Seck wala affaire yooyu ba balaa may déglu loolu damay dem parce que bu fekkee musique bi pour pour pour adoucir les mœurs lañ ko jàppee rek pour kontaan pour fecc ak mais damay déglu loo xam ni man ma ko feccee naa si fecc sama doom fecc si ñu feccandoo si bëggee après sangu ku nekk tëdd nelaw. mais yow yaa wax léegi à chaque génération tamit son style. non non le rap il reste rap ba léegi États-Unis rap bi fa amoon moo fa am ba léegi bien que form yi dafay changer rek maanaam ñu lay wax léegi trap la ñuy wax que booy yi sont plus trap si mbedd mi la ñu ëpp lu ñu nekk déjà lu mu trap boobu sa existé wul Sénégal dama koy wax boobu ba léegi. parce que ñoom musique lañ jël di ko mais les trap dëggantaan njaay man mi am studio États-Unis di enregistré ay booy man maa xam luy trap booy yoo xam si mbedd bi lañ nekk Philadelphie laa dëkk boo xam ne si dëkk yi gën a ngand si hip hop Philadelphie bañ nañ ko boo rabee rek dañaa yow yow from Philly parce que gars yi ngand yu bëri Philly lañ dëkk ngand yu bëri muy si art muy si cinéma bi muy si hip hop muy si affaire yu bëri mu ma la limalee ay rappeurs yoo xam ni booy xamuñu leen fii sax mais ma la expliquer rek nii la génération mu nekk ak ak ak ay artistes mais le rap va toujours demeurer le rap quoi qu'on puisse moo tax nag Rapadio projet bi di ñëwaat ak ñoom aar cannibal aar cannibal ak ñoom naarapi ak ñoom euh, gën moor ak ñoom xulio l'absolu ay boo yoo xam ne ñoom ak booy ñooy xëccoo affaire yi si underground bi te ils sont plus underground lyristique ba pare tamit aar cannibal boo ko waxee ñëpp te peut dire booy bi il est très conscient si hip hop bi ñun ce sera une ñun par rapport ak suñu notoriété Rapadio bi ñu amoon noonu booy ñoom it ñu gën a bëmax leen ñu gën a avancer pour hip hop bi gën a mun di di di dem kanam. est-ce que rap underground boobu quand ngay wax hmm, rap bi ngay prôné noonu est-ce que hmm. ça paie son nom. mais ñoom ñoom ñoom actuellement ñoom ñoo ëpp li ñuy def concert nag booyee nekk si underground bi ñoom rek ngay dégg ñu def concert à part un dip booyee nga fi dégg ñoom fi def ay concert di si am seen xaalis di si lekk xaalis parce que c'est des petits concerts de coin mais concert de coin yooyu da leen may xaalis chaque semaine wala chaque deux semaines. comprendre je préfère am benn marchandise boo xam ni mun naa ko mun naa ko jaayee par exemple euh, euh, euh, lekk si dund si sama kii te benn marchandise boo xam ne day fanaan sama biir nekk boo xam ne duma ko mun a jaay munu nekk comprendre mais dañ la bëgg expliquer nii la le hip hop va toujours rester hip hop bien que booy yi nga xam ni ñoom ñoo peut être yàlla may na leen bayre parce que bayre dañ koy wax am na ay politiciens yoo xam ni parenthèse kenn musu leen dégg dañ jeeg saa rek am bay rek topp leen comprendre nga y a eu des yoo xam Bass man xaw ma ko woon jeeg saa mu am ñëw di ko fecc ma lii mooy la ñu ma kii mooy Bass moo xew ak ñeneen ak ñeneen du ko kii mais dama la bëgg expliquer noonu la affaire bi di demee chaque fois dafa am benn process boo xam ni boo ci tollee il va falloir nag nga jéem a xam ni ngay defee sa orientation quoi. business bi rab business bi est-ce que tamit loolu taxul ñu fàtte orientation des mars yi. Ah, en fait fan kan moo fi def rap business bëriwul ah. Hmm. boo si xoolee ya moom laa la yaa ay cinq 6 ñoom nga si dégg ñoom. rek nga parce booy seen i clip dina yegg ay. millions de vues mais boo buggee boo bëggoon Sénégal suñu interview bi yegg ay millions de vues yomb na xam nga fi ngay jaar boo duggee si site de promotion yi fay leen ñu lay wax ni euh, boo fayee nangam di am nangam de vues loolu yomb na quoi te lan mooy vue vue mooy nga cliquer rek même link bi bu la neexul boo cliquer rek vue la loolu mooy vue gars yi comprendre ñu loolu ci dara c'est rien du tout y a des yoo xam ni dañ ko vue vue vue ba sonn mais ça parle rien de rien du tout. doo leen dégg sax ngeen di da ngay dégg ay artistes ngay dégg son yu siiw mais doo leen mus a dégg ñu def concert même si mbalax bi doo leen mus a dégg man mosuma dégg concert bu booy boobu ma lay wax léegi musuma dégg ay ay ay kii rek ay kii la ñuy doon ay genre ay euh, festival wala affaire yooyu nga dégg mais il faut savoir oser def comme Wally def comme Sidi Diop def comme euh, comment ça Viviane def comme ñooñu loolu mooy yóbbu musique bi kanam. ça tombe bien tey le 21 juin. Euh, ni ñu célébrer journée mondiale de la musique. Mm-hmm, mm-hmm. partout à travers le monde. Mm-hmm. tey boo doon def tey un état des lieux de la musique sénégalaise hip hop tamit lépp ci biir. Mm, ban évaluation ko ngay defar la musique dafa wàcc bu baax a baax. mooy li ma la wax côté artistiquement je vois plus d' artistes au Sénégal je vois que des stars de télé c'est plus des artistes nga dégg ne ay. teylu leen ñun bëgg ñu ngeen gaañu ay Souleymane ça c'est des artistes ay Cheikh Lo di la wax ay ay ay ay est-ce que ñoom tam duñu wax ak seen niveau tollowul ak fu population bi nekk parce que léegi ñoom seen musique la jeune génération ñoo koy déglu te ñooñu soxlawuñu am une mais euh, moom laa esprit bu mm, profond pour ñu xam moom laa ne je vois des stars mais pas des artistes gisatuma artistes ay star laay gis au Sénégal au Sénégal il suffit nga génn 3 4 télé ñu teg sa clip 2 fois ba nga nekk artiste keroog damay seetaan benn man ak sama soxna dañuy seetaan benn vidéo benn booy la xaw ma turam quoi man ngi koy bëgg a jàpp turam chaque fois mais booy bi dama ko seetaan man en général bu ma déggee musique nii bu kiwee may zappé comprendre bu ma neexul damay zappé léegi ma jeg saa si weeru bi ma jeg saa di zappé di zappé ci benn télé bu tudd je crois suñu yëf xaw benn booy di way benn c'est un jeune il de mariage booy mu ngi sol lu mais dama déglu booy bi mu ni noonu may xoolal kii talent bi mu am yëpp si c'est que dama la bëgg a expliquer a toujours ces talents la au Sénégal mais nit ñi ñoo leen joxatul gëdd boobu parce que sénégalais moo toll si caaxaan sénégalais moo bëgg loo xam ni da koy génne génneloo stress am bañ a ko léegi. gars yi tamit dañoo stressé tamit. waaw mais mais <laughs> loolu fépp la ci àdduna bi déjà. Et puis j'en profite pour, pour souhaiter euh, une joyeuse fête des musiques, euh, de la musique à les artistes. Bah donc, je vais expliquer fi musique bi toll jak jamono ji ñu toll il faut ñu revoiraat ko xoolaat ko bu baax def assise musique bi nit ñi di euh, télé yi ak site yi ñëpp di fay droit d'auteur nit ñi di organiser wu concert yi muy gën di bëri ministère de la culture gën a présent ministère de la jeunesse gën a présent di jàppale musiciens yi ak yeneen ministères yi mais ministère de la culture man ñaata yoon laa ko woo j'ai son numéro dañ ma ko jox moo woo ko ba sonn musul jël sama téléphone ma bind ko texte musul jël sama téléphone te pourtant damay tontu ministre Abdoulaye bu bees bi. parce que yow tamit da ngay clash gouvernement bi des fois moo tax du la jël. Mm, c'est que euh, gis nga man dama gëm ni Sénégal Sénégal ñëpp la quoi muy baadoole yi Sénégal baadoole la Sénégal pauvre yi Sénégal richard yi Sénégal opposant yi la Sénégal opposition bi la Sénégal gouvernant yi gouverné yi la Sénégal ñëpp la. mais grand mënoo may clash ba pare nag bëgg ma la recevoir. ah mais bu ma la clashee loolu dimbali la. c'est pour ñëw taxaw ni ma ah saa yow li nga ma wax ni keroog nu mu demee noonu tu sais man je reçois des des gens yoo may seet si ils sont du pouvoir mais dañuy waxtaan bu ñu waxtaanee man a ñoom après dañ may laaj faisabilité man li ma leen di wax lu nan lañ ko war a defee mën nañ ko waxee ba pare après day mel ni ñoom si ay rêve lañ nekk te pourtant c'est des gens du pouvoir dama leen wax lii laa xalaat ak ñi am gis nga y a beaucoup de projets yoo xam ni ils les ont mis aux oubliettes ko génnewaatoon dina doon permettre nit ñi gën a am ay spectacle gis nga ay temps dama leen doon wax leen ni leen les cinéma yi nekk si koñ yi gox goxaat ñoom dañu leen tëj kenn kenn utile sa cinéma amatul au Sénégal mais nañ ko def ay centre yoo xam ni nit ñi dañ fay mën a dem di produire muy artistes yi ak comédiens yi di woo seen waa koñ ñi ñëw dagg ticket même bu dee 1000 francs 1000 francs ñëw seetaan leen na permettre ñu dund mais artistes yi ku si jéwul euh, les comédiens surtout ku si deful euh, film wala def aussi euh, comment ça s'appelle ay pièces comme ñoom Tony ils sont les mieux parce que parce que ñoom au moins ay one man show la def un partout dans les petites boîtes et tout ça mais yooyu c'est des yoo xam nit ñi mënoon nañu ko exploiter ministère bi mënoon na ko exploiter euh, comme dama la jox exemple Empire des enfants cinéma la woon foofu cinéma Empire dañ ko defaraat dem def ay xale xale yi ñoo fu ñoo xam comprendre mais mun nañ def loolu mun nañ ko def Grand am na El Mansour am na yeneen ay cinéma politique culturelle amul amul benn projet culturel boo xam ni ministère bi teg na ko woo si artistes yi pour ñu gunge leen ci parce que ñoom ñun la ñuy liggéeyal donc ñoom ñoo war a mën a teg seen i projet ak seen feuille de mais fête de la musique tey dina am ay scène un peu partout. fête de la musique nit ñi sax dañ koy fàtte léegi nit ñi sax dañ koy fàtte ay temps fait de la musique ay temps ñëpp ko doon xaar ñëpp koñ boo dugg mu am podium foo dugg nag day commencé si gox goxaat yi ñun ay Fass je me rappelle chaque fête de la musique man ak xumaan da nga koy fàttali c'est des souvenirs yoo xam day kontaan mais léegi lan mooy fête de la musique au Sénégal ay ñaar ñetti concert ñu lay terrain akapes teg nañ fa benn pojom teg nañ beneen podium Médina ak loolu mooy fête de la musique comprendre nga mais c'est que dama la bëgg expliquer boo amee euh, moi je parle de la culture mais loolu c'est bien tamit c'est pour ñoom ñëpp ci ministère yëpp mu ngi mel ministère de la jeunesse amul benn programme pour xale yi benn sa à dire que c'est dépourvu c'est c'est c'est vide c'est-à-dire it's the void that's the void cest à amul dara loo xam ni ñoom nii nañ ni lii mooy suñu projet ak suñu programme pour jeunes yi pour jeunes yi am liggéey pour jeunes yi épanouir pour jeunes yi mun a orienté wu pour jeunes yi mun a amul benn programme muy santé bi amul benn programme comprendre lépp la fépp la valable si fépp la valable fépp fépp fépp fépp fépp xoolal tout récemment man ak Pape Ousmane euh, xam nga je diabétique léegi euh, dama ne woon ok damay porter combat diabétique yi pour euh, gars yi sensibiliser nit ñi ak dépister leen surtout dépistage ak suivi parce que diabétique yi suivi lañu gën soxla ko sax ay dépistage ak affaire yooyu muy suivi am docteur yi leen yi leen di topp donc c'est man Pape Moussa ce sera benn plateforme bu dimbali nit ñi pour ñoom ñu mën a xam fan la ñuy dem pour am suivi pour mun a xool seen suukar bi fu mu toll seen lan ak lan ak parce que am na ay districts yu bëri yoo xam ne loolu la ñuy toppatoo ci Sénégal mais nit ñi xamuñu ko diabétique yu bëri xamuñu nii am na benn association boo xam ni ci affaire jabet lay yëngatu ñu bëri xamuñu ko ko ainsi de suite ainsi de suite après ma ne xaaral ma dem songu gars yi xool ndax am nañ programme pour loolu ils ont pas de programme pour ça mën leen man damay porter combat donc ñoom ñoo waroon génn di gis nit ñi muy santé bi muy éducation muy affaire dañu war a génn indil nit ñi programme ni leen lii mooy suñu projet de société kaa lañ dem si ku si gis sa bopp dem si ku fekkee opposant nga ci loolu nga opposé wu opposant yi ngay gis ni tamit Sénégal doole leen sa a man gëj naa dégg opposant bu la ni ceeb cher na essence yokku nañ ko ah ñu ngi koy wax di kañ nañ ko wax xam nga opposant yi la manifestation du 17 juin gars wax nañ ko grand non loolu occasion la woon rek mais ñoom nag xam nga lan mooy combat bi xam nga lan moo waroon nekk combat bi non man dama man je suis ni ni de l'opposition man je suis un sénégalais nee naa la ma parti l'islam la bokk dama la bëgg expliquer instant yi ñu toll ils sont plus préoccupés par seen problème mu mandat ak problème mu nit ak tête de ak problème mu députation yooyu la moo leen doon occupé benn waaye dafa wax sànq benn raisonnement bu am solo dafa ni mais fekkee son ak sénégalais leen ñor question bi du kan mooy dem assemblée question bi mooy nañu dem assemblée mais ñoom tête de liste yi dafa mel ni liste majorité xam nga nañ ko waxee te proportionnel première bi moo ëpp moo moom ñoom ñoom lañ gën a fulaal que ñi naan ñoom ñooy suppléant yow bu ma demee ba nekk si benn liste parce que mérité naa dem assemblée nationale te ñaari liste kenn warul dem sax déjà muy bennoo muy yeewi kenn waru ci dem dañu war a récolter seen erreur yi ñu def mais dama la bëgg y'a d'autres y'a de coalition ñoom mënu leen bàyyi ñu diriger assemblée nationale jëm gérer pourquoi pas Thierno Bocoum à la à la présidence de l' assemblée nationale pourquoi le pourquoi pas le docteur Abdourahmane Diouf c'est des c'est des têtes ah waaw yooyu tamit ay têtes nañ waa Benno tamit am na ay têtes yëpp ay têtes lañ dama lay expliquer y a des gens yoo xam ni si ñaari côté yëpp mérité wuñu dem assemblée nationale te pourtant ñu ngi assemblée nationale ñi ay ñi c'est des députés sax yoo xam ne ay président lañ foofu à l'assemblée nationale te mérité d'accord on revient la. mais la bëgg a expliquer bi fu mu toll jamono ji nii nit ñi dañ si war a def assise toog xalaat lan mooy yóbbu musique bi kanam en parlant de ça dama lay wax droits d'auteur yi dama lay wax ay production le spectacle yi dama lay wax projet yi dama lay wax ay salle de spectacle dama lay wax ak yeneen ak yeneen keroog dañuy waxtaan ak Pa Ousmane on a trouvé que maintenant si rajo yi tool sax émission hip hop si télé yi mos ñii lim télé télé yi si am émission yi ko bëriwul est-ce que mën nañ trois en cas mais c'est parce que nit ñi ñoom ñoo nit ñi ñoom ñoo fàtte loolu nit ñi xam léegi lan lañ lan lañ bëgg am benn vidéo bu nice génne ko si tele bi nekk star après def ay ay ni euh, euh, invité ma maa ngi fii invité ma maa ngi fee am seen ay te affaire moo dem ba jaxasoo comprendre trop lan mooy lan. mais rab de conscientisation bi ngeen doon def di ko def. est-ce que jeune génération bi ñu ngi perpétuer loolu comme ba tey. mais bien sûr. per euh, ñu ngi perpétuer ce ce rap. mais mais de conscientisation des masses. moom laa bëri na xam nga maa ngi lay limal ay artistes yu bëri ni la c'est des jeunes yoo xam ne sax ñoom li ñuy produire yeneen ñi xam ne ñoo siiw sax ñoom bu ñu ko produire parce que dañuy job ñoom seen biir koñ yi dañuy bëri na lu ñuy jouer si koñ koñaat yeeg ruq-ruqaat yeeg hors Dakar ak ay yenn kii comprendre mais boo buggee yóbbu benn artiste boo xam ne 3 millions la lay laaj 4 biir biir biir Thiès alors que nga xam ni Thiès mënoo fa liggéey loolu ce sera un problème comprendre nga. mais conscientisation des masses comme yéen seen génération da ngeen doon wax ak peuple bi. jeunes yi déglu leen. mais loolu mu ngi wax naa la je te parle du cas de Adi ah. xam nga Adi Kaniba. Adi mais booy boobu bu toog di wax nii da ngay toog di ko déglu ba da nga xam ni kii li mu lay wax nii amul dara loo xam ni dina ko si et puis beneen affaire moo rey hip hop je me suis keroog laa toog di xalaat quoi ma ni mais est-ce que am y a plus d'activistes que de hip-hopeurs léegi c'est-à-dire que mënoon nañ ko def comme ñun niñ ko doon defee di def ay son faay beneen système xeex beneen système wax si lu ñu soxla yëpp PBS ñëw le bourreau est noir ñëw ay ay ceci n'est pas normal wax si li nga wax yëpp yëpp yëpp yëpp ñu avancé waat ay BMG foo di foo jege fee album yi ay ay compilation ay politiciens on faisait du rap dañuy def album am ay thèmes yu wute mais si thème yi dañ si dugalaale li ñu soxla wax si parce que activiste rek du ñëw du wax ni ay waaw lii lii lii ah, mun nga nekk activiste si jigéen ñi mun nga nekk activiste si si si leneen ak leneen mun nga nekk activiste lekk mun nga nekk activiste si consom consom yi ñu am mun nga nekk activiste si diine gi mun nga nekk activiste lu nekk waa ànd sàmm jikko yi ak activiste lañu mais ñu du ñaay rappeur mais alors que léegi rappeurs yëpp ay activiste donc y a plus d' sax que de tey si jeune génération bi ah ci jeune génération bi tey ban rappeur wala ban uh, artiste moom nga gis boo xam ne ni que moo la moo le plus ci flow ci rap ci engagement ci lépp bon y en a nag ah. complaisance. bon je sais pas parce que dafa bëri ay ñu bëri ñoo xam ni bokk naa si ñi nekk seen référence par exemple booy laajte un jeune talent comme comme comme Rifou il te dit il te dit que man Bibson moo tax ma rap il te dit Bibson moo tax ma lii Bibson ma bëri na nag quoi mais bëri na du ma kii ak kii parce que y en a tellement bëri na ko franchement bëri na mais euh, euh, côté engagement je crois que nii. xaw na des quoi si boo yi may gis nii parce que man dama engagé woon carrément si xeex bi dama doon rap mais duñ ko doon bàyyi fenn ko maanaam bu ñu waxee si jigéen ñi ay black man ba pare wax si lii wax si Baye Niass après dañu ñëw nag wax ak nit ñi nga xam ne dañu war a xam ni dëggantaan njaay li ñuy lii ak nii doxul biir Sénégal lii ak ni doxul Sénégal avertir people bi wax ak nguur gi wax ak ñu te ñun dañ ko doon def devant tout amuñu soon rusukaay amuñu soluskaay amuñu woon limite si loolu si devant tout le monde lañ doon def loolu donc je crois que ni côté boobu moom bëriwul ñi nga xam ni je crois gisaguma ko quoi. rapport bu la koo xam ni carrément côté engagement surtout ay taxaw dëggantaan jaay wax gars yi même bu fekkee sama gars nga ma wax la dëgg quoi bëreetul bëreetul nit dof bu ma la joxee. nit dof waaw peut-être mën naa gis nit dof moo waaw mën naa si gis nit dof. mun naa gis sama bopp si moom tuuti mun naa gis sama bopp si moom. d'accord tey da nga wax sànq nii que Rapadio dafay ñëwaat pourquoi da ngeen toog euh, bëgg a def les grandes retrouvailles ou bien si euh, c'est une demande. du des mélomanes demande publique la. Mhm. et puis euh, ñun musuñu xuloo musuñu taas Rapadio xëy na amoon nañu problème quelque temps avant mais on a toujours été ensemble. dañu musa di waxtaan musa am ay groupe ensemble groupe whatsapp di waxtaan ensemble di demalante dikkalante Iba man Keyti Mokhtar Ndiaga xam nga yëpp donc après bi ñu commencé nag teg gaa yëpp mu nekk demande boo xam ni am na si ñoo xam ni sax c'est des kilifa lañ si pouvoir bi sax ñoo xam si opposition bi ñu gars yi sonal ñu pour ñu defaat rapajo ñun mënuñu defaat ñun rapajo mën nañ gunge ñenn ñoo xam ne ñun gis nañ seen bopp suñu bopp si ñoom moo tax choix boobu parce que euh, choix boobu même nit bof bi ñëw si la bokkoon mais c'est c'était des petits euh, clauses de contrat yoo xam ne moo tax du bokk si album bi ñu def si naroon bokk. mais da ngeen di def un album boo xam ne waa Rapadio yëpp la yéen booy ñoo koy def ñun dinañ si rap man a Keyti ak Iba mais ce sera Rapadio lay doon daal mënuma wax carrément si li nekk si. kuy dem guerre du wane arme mi. Euh, et le projet est prévu euh, waroon na single bi waroon na njëkk génn si côté mois bi période bi lañ ko lañ ko senti woon mais par rapport ak euh, indisponibilité wu ñeneen ñi ñeneen ñi moo tax mënuñu ko génn même fête de la musique bi gars yi dañ booy dañ bëggoon produire si son yi am xam ñu si job mais ñun on a dit non non non nañ nekkaat bomb rek bu ñu kenn xam fu ñu jëm nañ xaar ba affaire bi pare ñu génn single bi. commencé def promotion album mais album bi incha allah si 2022 bi lay génn. et di ngeen et vous avez prévu de faire des scènes internationales comme nationales. beaucoup de scènes tu sais Rapadio c' est maintenant nekk c' un mouvement maintenant mun naa une famille ñi ñoo ngi France ñi on a un groupe de presque 300 personnes boo xam ni booy ils sont un peu partout dans le monde ay ba Chine ñoom c' est des membres à part entière léegi de Rapadio parce que ils contribuent chaque jour si wax si bi. dañuy waxtaan ak ñoom dañuy wax li xalaat dañuy contribuer tamit financièrement y a même du ni ma la y a des des kilifa yoo xam ne bëgguma tudd seen tur parce que ñu siw lañu biir Sénégal y a des lutteurs biir am na ay mbër yu siw biir Sénégal <laughs> sans compter ñun ñoo xam ne ñooy kii mais on a prévu de faire beaucoup de scènes ici au Sénégal déjà on a prévu de faire dans les stades ak Grand Théâtre déjà on a prévu de faire des trucs en France ak un man combattant bu nekk foofu bu tudd c'est un des administrateurs du groupe moom moo créé aajo ñuul te rap aajo moom bokk na si ñu ko donc IBA xam nga euh, on a prévu des trucs a prévu beaucoup de choses quand même pas dévoiler tout le truc toute la feuille de route mais je sais que ce sera pour un temps bien déterminé mi ne boo xam on sera présent. d'accord ñu def transition dem ci actualité bi. Mm-hmm. grand ñu gis ni que yàgg Idrissa Seck da ngeen doon en fait. politiquement parlant Idrissa Seck moom nga doon soutenir mais depuis quelque temps dañoo gis da nga jël say distance ak moom lu waxal loolu non Idrissa jëluma distance ak moom sax Idrissa sama grand frère dinaa leen il restera toujours un grand frère pour moi bien benn ñoo bokk Thiès xam nga benn c'est un grand qui a franchement si euh, euh, si côté yu bëri contribuer si si si euh, benn période si man comprendre c'est un grand qui avec qui on peut échanger des idées comme quoi il est très ouvert si dans la vie sociale surtout si côté jeunes yi day waxtaan ak ñoom bu baax donc sama grand mënu ma ko en fait mënu ma ko bàyyi mais bokkuñu peut-être vision jamono ji vision yi parce que man personnellement dama ko gunge woon et j'ai été le premier bu ko gunge maa ko njëkk a taxaw revendiquer ko si télé ni c'était un candidat très sérieux bon après affaire yi dem ba li xew-xew Mburok kii soo ak ay affaire bon lu ñuy def rek mooy we gotta swallow swallow the the pill xam nga benn benn comprimé la bu xaw xaw a am nivaquine bu ñu la seexal mais seex nga ko bu pare kañ wan ko ne am problème même boo ko tiflee tamit saveur bi dina des yow moo tax chaque fois bu ñu ma gisee dañuy gis Idrissa Seck aw ma honte aw ma ci gàcce aw ma ci delluwaay ginnaaw ma wax ni Idrissa sa sama grand frère la parce que li nekk si bopp bi man xam naa ni mun na defar Sénégal. mais bu fekkoon xaaral ma ñëw. li nekk si boppam man genre dama con je suis convaincu ni mun na defar Sénégal xëy na nag ay conviction politique am ak orientation politique moom la engagé quoi parce que man déjà bokkuma réew mi aw ma benn am ma carte membre si benn benn benn benn benn association benn association la am carte membre muy association mi ngi koy lay ko bàyyi ñes aw ma beneen association wax ma la politique de association BCA sax amatuma carte d'identité SODAV aw ma seen carte yaa ma ma seen carte SODAV amul benn association ma am carte wax ma la nag politique yaa may dégg donc dama la bëgg expliquer ni la jëluma samay distance moom parce que lii on s'est vu yàggul. kañ ah, bi ma ñëwee gis nañu may ma audience ñu waxtaan ma laaj ko affaire Mbour ak Sow waxtaan nañ ci moo tax. et lan la la tontu. loolu maanaam moom la <laughs> mais moom loolu moom la convaincre. te gëm na li muy wax noonu moom daf ne moom moom daf ko gëm li muy wax te li ma wax tamit neex naa dégg mais moom la con concerné tamit moom moo xam lu tax mu def <laughs> mu rek so du ma dévoilé ay secret parce que tamit man li ma xam Sénégal yëpp ma ko waxoon tey fii nii damay ragal suba suba nga ni sa grand frère dig jël si nañ ko pour ay enquête dama xam lu bëri biir Sénégal parce que dama yàgg a ànd ak ay kilifa yu xam biir Sénégal bu xam Sénégal dem naa ba Sali Keñe en face euh, Guinée Bissau ànd ak ay góor yàlla yoo xam ne si politique yàlla da leen may doole te waxuma la ànd nii ni ànd si avion bu ndaw dem dem defi ay visite mu am lu ñu fa def yoon mais dama la bëgg a expliquer la ma xam dafa bëri trop moo tax bu may faral sax di wax lu bëri gisoo ma noppal waxatuma sax depuis bi temps dee sax wax ma maa ngi koy euh, maa ngi koy jaar et lu waxal loolu parce que waxatuma parce que amul amul man je je me au Sénégal tey jii nii les grands politiquement mag yëpp dem nañ seen ah, am nañ ci des. mais bëreetul xam nga lan mooy homme d'état fii li ñuy wax homme d'état tey nga bokk ci opposition suba nga doog ci pouvoir. mais président Macky Sall pour pour ñu teel leeral man gëmuma man du ma am ma am man Macky Sall laa kon du ma élection yi passé na ñoo ànd ak benn parce que si bokk yaakaar bi ñu koy tàmbali si man si laa bokkoon. mais la moo waxal entre ko nga génn. non parce que gisuma sama bopp si ñoom. lan mooy gis sa bopp sénégalais nag pour gis boppam. day gisuma euh. sama bopp xam nga mooy la. Hmm. parce que man dama ragal injustice. joxoon ñu la la ta part du gâteau wala. non man réclame un parce que bi may ñëw ñuy xeex pour non à la troisième candidature de Wade c' était sans condition donc man am condition ma leen laaj. Hmm. maa ngi sant yàlla bu baax comprendre dëkk bi ma nekk États-Unis di fa liggéey par semaine lañ may fay. maa ngi sant waa sant maa sant yàlla comprendre donc lenn laa xam ni daal euh, ñu koy xate idéologiquement man ak ñoom bokkuñ fu ñu jëm ak vision idéologiquement parce que man démocrate laa dama bëgg démocratie dama gëm nit am di mu war a wax wax ko nit bëgg def dara def ko bërki démb on a vu le problème de la marche naka la mujjee ay mort dañu war a arrêté rey nit ñi muy si côté bi muy si beneen côté bi muy pouvoir muy opposition bi dañu war a arrêté loolu. mais grand boo waxee opposition bi dafa wax arrêté mais gisoo benn. ma ne ma ne arrêté. Hmm. on peut pacifiquement ñu tas ko si nekk demande au moins dañ opinion bi na fi nekk. mais ñoom demande woon nañ loolu mais dañ leen ko lànkal. voilà alors qu'ils sont des. mais est ce que comme tout le monde est ce que ñoom bi ñu ñëwee. Hmm. ñoom bi ñu ñëwee police bi mu ñëwee di leen jël si. est-ce que ñoom jéem nañ ñi ñoom dañuy marche par force defuñu ko dañ demaat toog seen biir kër di wax ni ku leen fekk seen kër xam ñu doxalante ak yow. mais mais ils n'ont pas la même posture que tous les Sénégalais tamit ñoom ils soo des leaders d'opinion ils ne peuvent pas engager certaines certaines batailles. xam nga foofu la affaire yi njëkk a cóolee. yoo xam ne day nekk ay bataille gis nga y a des médiateurs dans ce pays là yi kan moo leen gëmul Sénégal ñëpp gëm am na mara marabu boo gëm gis nga bu ñu demoon si volonté divine bi noonu maanaam seeti sëriñ si waxtaan ak ñoom. grand nag diine nag fii oh, ay mbiru àddina nañu wax. moom laa la wax nii <laughs> xam mais attends constitution bi si si lan lañ ko bind si diine booy waat da ngay waat nest si lan ngay waat. Ah, on a boo a une république laïque donc. c'est pas un état islamique. waxuma la sëriñ mais ku ne homme religieux la je parle de les les abbés nañ seet ku ne ku ne kilifa diine yi kilifa aar yi waxtaan ak ñoom ñu leen nii ak nii la affaire yi demee. boo leen si jugul nag dëkk bi dina tàkk dafa waroon am benn avertissement ba pare te boo man leen laa bañ. Hmm. leen rek laa bañ. Hmm. mooy rapport de force ba nit ñi di si dee loolu d'accord ma ci d'accord ci loolu rapport de force dañ ko war a arrêté bi Ablaye Wade taxawee nii day def par force candidature. mais rapport de force boo ko waxee ah, ah. mais rapport de force. boo waxee rapport de force opposition bi nekku ñoom ñooy yor force bi c'est le pouvoir ki a qui a cette force ñaar ñooy xeex ñaar ñooy xeex waxuma ni waruñu génn j'ai jamais dit ça mais reyante bi la tuerie bi dafa war a arrêté parce que baaxul si kenn gis nga ñi ñi rey seen doom yi ñoo ngi koy jooy ba léegi loolu dafa dafa dafa triste nga yeewu ñu ni trois mois ñi ñi rey ñoo ngi tey ji nii est-ce nañu am na lu ñu dëjalee seen doom yi dañ koy xalaat ñaata nit ñaata xale lañ fi bàyyi ñaata doom lañ fi bàyyi ak leneen ak leneen gis man man ragaluma wax ñu may saagaab lu nekk parce que su nekk am na sa opinion mais dama ni la rapport de force bi du lañ ko war a defee du lañ ko war a defee sëriñ bi ki démb la fi jógee Darfour jubal ay xeet yoo xam ne ñaata at lañ xeex di rayante loolu rek war na joxe exemple na gars yi waxtaan entre ñoom man pour man dañu war a toog te Macky Sall nag moo war a njëkk invité nit ñi à ça Macky Sall moo war a woo gars yi di leen kaale ñu toog waxtaan. tey quels sont tes rapports avec Macky Sall tey su la ko Macky Sall laa ko gëj gis am mboojeen ñoom seen bi ñu falo bay def seen université laa gëj a gis mënuma fàttewuma laa dadi loolu ma ko waxee ak du mbow waaw bëgg naa gis dadi man ak moo Red Black semaine prochaine de c'était en 2013 ba tey resem. daa ngay gis Macky Sall. mais est-ce que entamé nga démarche pour gis ko audience. ñi muy àndal yëpp yëpp yëpp yëpp. non Macky warul sax xaar Macky fu mu gisee fu mu demee ba gars yi seet si ko si palais bi mooy rappel war na leen fa mais ana daal fu mu nekk. parce que mais nag président la kon am jot nag. ah président du am jot bay wax ni man Pii France moo sama group bu la wax Pii France war na xalaat depuis ñun on lui demande pas ça xam la lañ mu defar dëkk bi jeex na wàññi ndund bi defar dëkk bi defar éducation bi xool santé bi bañ a jaay Dantec hôpital la Dantec waruñu ko jaay benn xam nga euh, nu ñu ko waxee bàyyi gars yi ñu génn si àll bi ñuy xeex maanaam euh, c'est euh, comment s'appelle armée bi xam nga gendarmerie fii ñaata yoon lañu fi rey ay nit si agression est-ce que mës nga génn armée bi di pat patrouiller pour xool agresseurs yi guddi il faut mu am benn nit ñi am lu ñu bëgg ñu bañal leen ko rek moom mu génne armée bi foofu loolu lay demee chaque fois boo gisee militaires yi wala gendarmerie yi rek char boo ko gisee mooy am na lu xew te alors chaque jour am lu xew Pikine insécurité bi Grand Yoff insécurité bi ba ci yenn côté yi insécurité bi mais doo mos a gis gendarmerie doo mos a gis armée ñooñu léegi dañ leen di denc rek ba heure boo xam ne man bugg naa def dara rek génn leen ñu muñu xeex mais est-ce que du nekkul <coughs> wax nga ko léegi nga ne 2013 nga gëj a gis président Macky est-ce que du loolu nga ko mm, meree comme ba comme ba bi Idrissa Seck doon dem nangu woo ànd ak moom d'autant plus xamoon nañ ni ko yàgg Idrissa Seck man tu par Idrissa Seck rejoindre Macky Sall parce que man non Idrissa Seck bi mu dem di seeti Macky Sall hmm. bokk mu suñu mu wax ni dari waayam seeti Macky Sall je je sama yoon nekk sax bu fekkoon ni ko daf la ko waxoon di ànd ak moom. Euh, man je suis jeune du ma bàyyi kenn hypothéquer sama life man je xale bu ndaw laa sama life demagul fenn li guy gi di wax on a des jeunes <laughs> waaw man je suis un jeune bu xam lu mu bëgg xam ni ëllëg. kon da nga da nga bëgg kon da nga bëgg wax ni que Idrissa Seck dafa ànd ak Macky Sall donc seen union bi day hypothéquer l'avenir des jeunes. waaw man du ma a wax loolu. parce que moom laa la sànq man dama gëm ni Idrissa Seck am na lu mun a defar Sénégal. mais grand nag vous avez une raison boo xam ne ni ko nanguwoo ànd ak moom. bu ma ànd ak man je suis pas Macky Sall pour ma idéologie wu Macky Sall loolu laa la wax. mais yow Idrissa Seck mi ngi àndaloon gëm na Macky Sall pour lan àndaloon. Idrissa on l'a benn élection la taxaw. ñëpp ñëw si pour soutenir que Khalifa Sall bul fàtte daf ko soutenir Barthélémy Diaz bul fàtte daf ko soutenir docteur euh, Babacar Diop Idrissa Seck le soutenir ainsi de suite donc lu tax ñu may indexé woon rek chaque fois fu ma dem ñu may Idrissa Seck Idrissa Seck idi sama grand la loolu dara mënu ko denc sama grand la bu ma demee ba toog jaaxle wala toog am loo xam mën naa ko lijjanti ma tomee toog ak moom daf ma koy lijjanti daf koy def parce que nag sama grand la bu dul dara mais tey bu fekkoon ni ko lancé na la un appel na la kaay kaay jàppale président di nga ko def ou pas du ma ànd ak pouvoir bii nekk fii nii li may gis nii ànduma ak loolu mais tey bu la président Macky Sall woowoon quand même di pour pour nga jàppale ko sur sa politique euh, de jeunesse ou bien culturelle di nga ko jàppale. Mm-hmm. ou bien même ci ci politique en général. Macky moo woon ni ma lan nga xalaat ci lii naa ko wax samay xalaat. mais jàppale. lan mooy jàppale wax la sama xalaat loolu du jàppale. naan ko lii laa xalaat lii mooy projet yoo boo ko defoon xëy na dina dimbali jeunesse bi tout ça attends man je suis pas contre Macky Sall réew yaa may sànq ay partage du gâteau man j'ai jamais demandé ma part du gâteau musuma ko laaj j'ai des amis nag yoo xam ni ñoo ngi si pouvoir bi ku mel ni Biram Faye c'est des gens heure bu ma jaaxlee Biram eh, waaye dama soxla nangam ma koy jox parce que c'est des c'est des amis c'est pas ay politique la ñu ànd c'est des amis à moi mu ngi mel ni ma woo la may mun a sama kii conférence de presse bi doon nga ma ko defal n'est-ce pas c'est des amis mais ànduma ak ni ñuy doxalee réew mi dictature bi am fii mun naa ko tuddee dictature parce que ni ñu xatee euh, euh, euh, ba créer tension bi am Sénégal yëpp ànduma ci nee naa la dañu war a toog waxtaan te Macky moo leen war a invité au débat waxtaan ak ñoom ni leen lan ngeen xalaat élection yi nii dañ ko war a daaxaat man pour man. Ah, grand élection yi def nañ ci xaalis. mais mais waaw def nañ ci xaalis c'est vrai. bon sama xalaat la boo xoolee ba xool tamit si c'est à discuter parce que tamit boo daaxee élection yi de mel ni ñaari coalition yi rek fi am Sénégal te yaaw d'autres coalition yoo xam ni xam nga kii na leen pour dem élection mais dama la bëgg expliquer ni instant yi ni bu ñu bëggoon apaiser li yoot nii si Sénégal ak boo yi di deew affaire yi nañ toog waxtaan daxaat élection yi toog xalaata man loolu laa gis quoi. d'accord maintenant que tu dis que nekkatoo àndatoo ak Idrissa Seck politiquement parlant léegi. tu te ranges derrière moo non xam nga ma la. ou bien kan ngay jàppale ci politique parce que. xam nañ ni que man man tu as engagement man man bu ma amee lu may wax pour le Sénégal laa koy wax ma demoon tey ba am lu may wax nii damay wax li may wax après toog man soxla ma bokk parti politique pour wax li may xalaat ci dëkk bi. mais mën nga bañ a bokk parti di soutenir un. leader jamono ji nii may wax ak yow hmm. gisuma kan laa war a soutenir. grand loolu nag mënu la neutralité même est une partie prise. waaw xam nga lan moo tax c'est parce que di nga xam ne yow bokkoo fii bokkoo fee yow fi nga bokk mooy yow fi nga xalaata bokk yow mooy li nekk sa xel foofu nga bokk man c'est pas forcé que dama war a ànd ak Macky Sall ñoom ni ñuy dawalee wala mu ànd ak waa Yewwi ni ñuy doxalee man am naa. am naa waa Yewwi seen politique convaincre la. aboo ah parce ma gëmloo ni yow da ngay xeex système ñi la wër yëpp système la mënoo ma gëm ne Aïda Mbodj barki dem Macky Sall la àndaloon si élection yi passé te pourtant gars yi Sonko seeti na ko pour mu ànd moom. naka la mujjee après tey jii nii moom mooy toog si ginnaaw moom Aïda Mbodj bu leen fàtte moo tujjee woon Abla moo tujjee woon Abla Wade Fantomas bu leen fàtte Aïda Mbodj da bokk na PS bokk PDS ñëw bokkaat makki Sall léegi tey moom mooy taxaw di xëccoo fële Bambey encore Aïda Mbodj lan lay prouver politiquement amul dara lu mu fi def politiquement Habib Sy non Habib Sy bi mu fi nekk si la yoonu daara bi gënoon bon war war na mun a xëccoo dara instant mais jamono jooju nekkoon moom moo nekkoon le ministre des infrastructures tamit man bu ma jegee pouvoir damay damay nekk de de facilitateur pour dëkk bi ma dëkk et Sonko loo xalaat ci moom benn instant bi mu commencé ànd ak ñooñu noonu mooy ces politiciens la man si la si la stand by si tey ci moom waaw ah, damay stand xool mais man boo ma nee da ngay xeex système dem si ba jeex ko mais moom ni ni mu koy defee mi ngi xeex système bi mi ngi prôné la la bonne gouvernance à travers mairie bi mu yor à travers man la nan lañ jox bénéfice du doute rek fii ak ay un an deux ans après moo tax man la instant il est très tôt de se prononcer comprendre nga nañ xaar c'est des jeunes ay morom la ñun ñëpp comprendre mais dama ne man personnellement ànduma ak benn politicien Sénégal jamono ji may wax ak parce que tamit dama dama ànd ak ñoom ay ati ati ati dama si xam ñu bëree bëri bëri dama si cheminer ak ñoom si ñu bëree si ñoom moo tax ànduma mën nañ xam élection législative bi bu fekkoon ni que day am à date échue le 31 juillet date bi bu fekkee du du secret bonne coalition lay voté. man ah. voté wu ma benn coalition xam nga bulletin blanc. Hmm. Ah. gis bu fekkee ni que bulletin blanc kon kon ngay. voté est-ce que jax na ko ngay wax sa point de vue kon ci réew mi. si xam nga tax parce que ñu bokk réew mi ñoom seen point de vue rek du yooyoo valable donc ñoom dañu am seen point de vue man ma am sama point de vue donc sama point de vue mais dama gisul kenn ku porté combat boobu. mais grand na politiciens yi bëri nañ fi wax nga ko yeewee ngi fi bennoo ngi fi mm. aara ngi fi. donc mënoo ne pendant sur toutes ces pour toutes ces amul ku porter dama si am le docteur Abdourahmane Diouf ñu àndoon di jàppale am Thierno Bocoum même chose moo xam ne c'est des gens très intelligents yoo xam ne mën nañu def dara pour mais. ah yow daal yëfu réew mi nga ko bëgg a def yëfu parti réew mi parce que ñooñ say gaañ nañ moo tax. non man j'ai plus d'amis si yeneen parti man benn bokk yaakaar lu ëpp xarit bennoo la ëpp ay xarit genn-wàll gi yëpp samay gaañ la mais bon ainsi daal. moom mooy demee noonu daal di wiy soom gisul kenn ku mu xam wax dëgg fa yàlla dal na xelam wax dëgg fa yàlla man damay waxal sama dëgg rek mais saa daal ba am sëgg si kurus gi wet samay wet. ñaanal Sénégal ñëwee parce que ñi ngi annoncé son retour. man je suis pas un karimiste gëwuma ni li fi def man ni Karim jamono jooju noonu Ablaye Wade nekkoon foofu mu nangu ñu exilé ko xam dañ ko exilé mu nangu ko wala. mais même bi ñu ko exilé déggooguñ ko ba léegi mu wax waxagul si condition bi xam bu doon koo xam ni amul secret bu muy nëbb xaar rek ma ñëw fi mu nekk noonu mun na fa nekk di wax. mais euh, parce que am na ay foofu. dafay xaar le moment opportun rek. <laughs> mais loolu moom moo tax nag ñun mënuñu ànd ak Karim Wade parce que xamuluñ ko dara. Hmm. d' accord. man ànduma benn condition mais man je suis là sama coin di ñafe léegi nag y a des gens yoo xam ne man j'en suis sûr que ni. sama xel dina dal si ñoom pour li leen jox wala li leen dénk à part politique de kii bi ñu def ni gestion de de ce pays là man benn kiiwuma si bon pour le moment nag dañ siy teey si waa Yewwi parce que y a des gens yoo xam ne ñoo ngi si Yewwi ay ay gens vertueux yoo xam ne bu leen joxoon tey yenn poste de responsabilité mën nañ ko gérer comme am na si lu ma nekk di non da ngay cité ay tur non non cité tur. xam nga sànq da nga ma laaj sama lu muy waxtaan ma ne Idrissa Seck moom loolu man. waaw ah, mais da ngay wax ñooñu pour ah, sénégalais bàyyi leen xel gën leen jàppale. en je sais que y a des yoo xam ni. ou bien yeewi askan bi ñoo xam ni. de quoi à de quoi tàddi bi à peu je suis pas là pour euh, joxe ay tur wala pour de promotion ay ay sénégalais je sais que ni am na ñoo xam ne ñoo ngi si yeewi askan bi ñoom mun nañ defar réew foofu laa laajee. d' accord euh, keroog la vendredi dernier dañoo gis ay domicile opposant ñu assiégé leen. c' est pas normal. waaw ban point de vue ko nga am. ci loolu c' pas normal c' est pas normal. li doy ni vendredi Ousmane Sonko wax dem juma ñu tere ko dem juma. mais loolu du yoon man bokk naa si ñi ko ñi ko ñi ko dénoncé am naa say vidéo ma si def sa sànni ko qui a été partagé mais dama ni c' pas normal ñu barricade non seulement buntu këram côté koñam. mais waxuma la dara ñuy barricade diineem tamit mënul nekk mënoo jël lu nit ki en embuscade même si diineem mënoo mais nit ki bu dul dara sax yow bu fekkee da xalaat ngay def sama say seme à mais gunge ko rek ba si jumaa ji mu dugg xool bu jullee ba pare yow mu gungewaat ko mu koy gunge rek amul mais yow bu fekkee da nga ñëw tëral ni nit ki sax du julli ji léegi na la def doo xam ak quel sens sa tamit problème bi mooy que ni Macky Sall dafa war a apaiser moom moo war a apaiser situation moom moo war a wax gars yi kaa li ñu waxtaan ñu moo dialogue balaa élection yi di ñëw ñoom am mais est-ce que tamit ça sera un dialogue franc xam nga Macky bi mu bëggee wax ci Covid bi dafa leen invité ñoom ñëpp ah. dëgg loolu ah. ñoom ñëpp wuyu ko ñu waxtaan ci lan lañ xalaat ci Covid bi mais pourquoi mun ko def ci situation réew Macky dafay dafa nekk acteur comme ñoom ñëpp non man nag pour man Macky Sall acteur culturel la quoi <laughs> waaw pour man événement rek lay lay créé mais man mënoon leen woon jaloo dialogue ñu waxtaan si dernière euh, kii étape bi ñuy mooy mënoon leen woo sax semaine bi ne leen ñu waxtaan ñu xool naka lay demee invité ay non guide la invité ay ay euh, nit nitu caada yi nitu aada yi invité ñëpp ñu toog waxtaan benn débat boo xam da koy tijji ñu xool naka la ñuy demee si élection yi apaisé wu ñu tranquille man man daal loolu laa gis ñu toog wax mais grand gëm nga ni Sénégal wax na toll foo xam ne ni ko dañuy wax di interdire marche di am ay citoyen bëgg a marche. wax li leen métti ñu koy interdire. loolu moom mooy wàcc constitution bi sax déjà. Hmm. nit ki am na droit protester si lépp loo xam ni moom euh, neexu ko am na droit bi am nga droit dem ba buntu pale sax ni sama wàcc lii neexuma États-Unis da ngay gis gars yi dem buntu kër Trump sol ay. yëre def si nangam sa saaga Trump bind ko ci wala dem bintu buntu palais di kaas si Joe Biden mais lu tax ñoom mënuñu taxaw nii dem ba kii ni lii neexuñu est-ce que parce que ñoom ñoo wàcc constitution bi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a gérer constitution bi ñoo wàcc constitution bi est-ce que tamit du ñoom tamit ils se ils se sentent menacés. au fait mais kaaraange gi ñoom ñoo ko yor de bul fàtte ñoo yore gendarme yi ñoo yore armée bi ñoo yore policier yi man je trouve que nii nit ku war a marche je crois ni la dama bëgg a marche parce que li ngeen def ni neexuma ne ko ok kañ ngay marche nangam sàngam gunge ko génne sa armée boobu di leen dóor nga génne leen ñoom ñu gunge leen yóbbuwaat leen ñu ñëpp ku nekk dem seen yoon lu jàmm ni ñooy. d'accord léegi bu fekkoon nag loolu lañ ko doxale léegi nag bu ñu demee nag man sama question mooy bu ñu continuer nii ñoom nee nañ élection am sans seen léegi bu ñu demee ba jour bu élection bi est nit ñaa koy sóoraale wala bu ñu demee tey jii nii ba commencé def campagne électorale bi loolu foofu dina grave de est-ce que Macky mu ngi sóoraale loolu loolu lu nekk mun na am parce que biir élec campagne électorale lu nekk ngay gis danger bu nekk da nga gis parce que nit ku nekk day dem def lu ko neex si àll bi lu nekk mun na fi xew na ko gars yi xalaat tuuti. et tous ces toutes ces pertes en vies humaines tey koo koy imputé état bi pouvoir bi ou bien opposition bi. gis nga gis nga loolu noonu débat la bu ngand ko man pour man euh, sama réew bëgg naa ko yàgg nañ xeex pour réew mi yàgg nañ dem confronté ak politique ak euh, comment ça s'appelle ak Ablaye Wade yàgg nañ confronté ak Abdou Diouf mais dama ni perte vie humaine bu dee benn la sax dafa diis. donc état bi def si am part de responsabilité bu ngant mais tam opposition bi dañ si am part de responsabilité quelque part nag laa mais état beneen leen ëpp part de responsabilité parce que ñoom ñoo yore gànnaay yi ñoom ñoo yore armée bi ñoom ñoo yore policiers yi ñoom ñoo yore grenade yooyu ñoom ñoo yore balier ak yooyu yëpp tey maa ngi déglu benn waaye di wax ni xaw ma lan bu ñu la demee bu war la song ñoom seen kii dañ leen ko xaw si seen kii la bokk si seen xaw ma lan policiers seen règlement bu nee bu war war tiire ak bal il faut gars yi xalaat ci benn politicien la xam lan moo ko woon si télé ban balu nga war a tiire dañu waxante dëgg lacrymogène rek dafa saf wax ma la balu balu kii mais daal man pour man daal c'est partagé quoi mais nag man de personnellement ma wax sama doom demal nga rayante ci si si ah bon ma ko wax sama et la marche du 29 bi ñu woote di nga dem déggoo ma du ma wax kenn demal nga manifester wu buñ ma woowee daal si tëggu casserole bi dinaa ah. génn fii casserole sama casserole kon demee di nga casserole waaye casserole bi boo ñëwee duñ ko filmer mais duma dem doxul kenn ay marche lañ marche mais marche bu fekkee yow mais grand mais man marché lu ma mais tu es paradoxal avec toi mm. nga ne yow intérêt Sénégal tax a jóg alors que yeewu ce que marche boobu dina tax dina tax tey jii nii li may xeex moom marche bi est dina ko régler ñaata yoon la fi nit ñi marche marche bi gënoon graw daaw boobu gënoon garaaw bi ñuy lakk Auchan yeeg affaire mais lan la réglé. boobu c' était pour la libération d'un opposant non. mais bii c' est pour même, même chose pour une cause générale. non mais c' est la même chose opposant boobu moom lañ bañaat mu dem assemblée nationale moo tax ñu éliminer liste mais moom nee na soxlawul doon député. non même bu ko soxlawul même bu ko soxlawul symbole la pour mu dem assemblée nationale au moins. mais tey ban relation nga am ak Ousmane Sonko mos ngeen toog. xamante ne mosuma ko gis xam naa ay xaritam mais je mais tey objectivement parlant le sénégalais lambda que Dadi Bibson ban appréciation la am ci Ousmane Sonko. sur sa politique genre Sonko baax nañ ci dëkk bi. Hmm. parce que na tax Macky Sall di bàyyi xel tamit <laughs> mbedd mi. est-ce que di nga foog ne il fera un bon président. man leen rek may déranger Sonko. Hmm. oui ou non il sera un bon président oui ou non. mais pourquoi pas mun na nekk président bu baax ku kii see. lan moo lay déranger ci moom ma ne mun lenn rek. man pour man discours am dafa xaw a dafa violent bu mu. dafa violent mais est-ce qu'il n'est pas mis. non boo koy déggee li muy waxee di kii nii affaire yooyu damay ah. xaw a je dama xaw a tiit daal damay tiit sax man sama bopp. parce que nit ñi buñ ñu gisee sa leader muy def noonu yow dina mais est-ce qu'il n'est pas mis dos au mur que. li ma dund yëpp kon du tax ça peut tamit mais man personnellement. damay tey si politiciens yëpp jamono ji ma toll nii parce que Macky Sall discours bi mu amoon c'est pas ah en 2012 c'est pas le même discours man actuellement parce que moom moo doon wax ni euh, benn mandat ñaari mandat moo mun a am moom moo fi doon wax ni nit ñi am nañ droit marche moom moo war moo doon wax yu bëri tey jii nii yi mu doon wax yooyu yëpp tey boo ko vaaree tey jii nii da ngay wax ne est-ce que Sénégal jaratina ngay wóolu président. et troisième candidature bi ñu wax ci président Macky Sall loolu Macky Sall am na ku muy waajal. ah bon je le sais. dañ la ko wax président Idrissa sa la ko wax ou bien. non Idrissa bi wax yooyu genre wax yooyu. mais un des proches du président. ma dama xam ni Macky doful bay def trois donc moom it Macky son parti la duñu bàyyi ñoom mu teel a seey nii am na lu ñuy waaj ñoom te li ñuy waaj ñooñu bu ñëwee ñëpp nañ si seen bopp. da am ay bribes. xam naa ni Macky Sall du def troisième mandat. ah du ko fi def. Dadi son moo ko wax avec certitude. Macky am na lu muy lu muy waaj. Macky Sall yi muy def nii yëpp di xeex pour kii bi nii gars yi jox ko kii palette ki ñu ko xatee. assemblée nationale beeg yooyu yëpp. Macky il est intelligent xam na lu muy def. mais yow da ngay jékku si ñu ni may mën a la def président léegi président. mais kan la en fait d'après vos sources kan lay waajal ku def ko est-ce que mën nga ñu jox benn profit sama analyse kese dama analyser man nag am naa droit di xalaat di réfléchir di analyser mais dama xam ni mais keroog grand semaine prochaine euh, semaine dernière plutôt Sénégal dafa. bokk na bokk na ci trois pays ko ñu bañ a voté loi buy interdit troisième mandat ci CEDEAO. waaw ba est-ce que loolu c'est pas des prémices. yu wane ni que Macky Sall de parrainage CEDEAO éliminé nañ ko mu bañ ko mu ñu moo bañ CEDEAO d'accord ñu si parrainage Macky na yoonam nekk si mais dama la bëggee expliquer Macky Sall ñun ñoo ko dul sax bàyyi muy def troisième mandat te moom loolu leer na ko xam na ko. donc li muy def moom moo ko xam te xam naa ne moom Macky Sall du bàyyi tamit noonu noonu taf-taf nii partem bi suux noonu ak tous les problèmes yi nga xam ni ñoo ngi koy wax si partem bi mooy ay détournement de fonds ay OFNAC ay épingle ay nit yu bëri ainsi de suite ainsi xam na lu muy def Macky xam na tey jii nii bu fi bàyyee lii nii beneen ku fi ñëwaat tey jii nii njabootam gi nañ sonn trop mu ne njabootam def troisième mandat yow di nga tali bi son dina pare wàcc je son premier opposant di nga wàcc ci tali bi xeex je serai son premier opposant kon nii ni ne ko opposant am. instant yi man je si suis opposé à à la politique en général au Sénégal voilà dama politique la opposé wu instant yi nii dama toog jàpp sama coin mais am naa nag sama ay sama ay point de vi si kii affaire parce que li ma bëgg a com li ma bëgg a porter combat boobu noonu du li la du ñi koy porter. mais grand man bés bu ma demee ba gis. lu sérieux au Sénégal boobu may engagé wu man je je le fais publiquement devant toutes les médias Euh, toutes les les les chaînes de télé et sites internet ak rajo au Sénégal. Mm, kon da nga bëgg wax ni ci classe politique bi y' a rien de sérieux. rien ne rien de sérieux. instant ah bon toutes ces coalitions ne bu sérieux woon ak ay booy du dem ànd ak Yewwi tamit. mais grand tamit la politique ce sont des concours de circonstances. waaw mais tamit politique tamit. si affaire idéologie daf si am solo mais ba tey Sonko li mu gëm mu ngi koy gëm ba tey Aïda Mbodj li mu koy gëm. mu ngi koy gëm ba tey xalifa li mu gëm mu ngi koy ba tey ñoom Thierno Bocoum li ñu gëm ñu ngi koy gëm. waaw moom laa donc donc dama ni la man li ma gëm laa wax ni man waxuma ñoom li ñu gëm. donc da nga bëgg wax la le peuple sénégalais est en train de faire fausse route parce que ñu ñu topp ñu sommes pas sérieux man waxuma loolu léegi. parce que da nga ne gisoo lu sérieux man laa wax man loolu sama point de vue dama gisul ku sérieux au Sénégal lu pas ku sérieux mais lu sérieux muy côté bii muy côté bee ne man gisuma lu sérieux man dama koy wax ma bi mooy troisième fois ma koy wax man maa gisul lu sérieux lu ma convaincre quoi man loo xam ni convaincre na ma bu fekkoon au temps nga xam ni yeewi dafa nekkoon sensé sans ces poubelles yi nga xam ni ñoom depuis jamonoy ah, Ablaye wala nga leen qualifié de non depuis jamonoy Senghor ñoo ngi fi ba léegi man le ferai jamais may mën a jour bu ñu demee ba bëgg fi def troisième mandat boobu nag dinañ gis nag vrai Daddy Bibson bi ñu doon gis muy wàcc di xeex jee ñu koy dàq jee di ko di ngeen ko gisal. mais dañoo pour le moment ni dara jaralu dañoo gis ni que ci rappeur gi à part ñu ne dof gisuñu benn rapport am engagement bi ci politique dafa mel ne ils se sont tous emmurés dans une. non mais parce que dañu gis yu bëri ñu doon gëmloo ñu dem ba si gis contraire bi. dañu gis yu bëree bëri. activisme bi nga doon wax sànq est-ce que du activisme bi bee dox. non non tous les activistes là dañu jàpp seen ñàmm parce que dañu teey léegi ci jeu bi jeu politique bi ñuy gis tey nga yeewu fii jekk saa gis keneen kii yow ab Abdoulaye Wade bu demee bay bokk ci ci coalition bi nii. Abdoulaye Wade bi nga xam ne moo gën a mooy président bi gën a bi marqué Sénégalais yi dem bay yuuxu wàllu ba tuddee boppam wàllu. dafay woote wàllu Ablaye dañ ko boot instant yi nii te moom moo waroon bootaate donc rien n'est sérieux fii rien Ablaye Wade ba dem bi doon wax troisième mandat ba forcé ko ba yaayu de mordom tey jii moo boo xoog waaye yeewi loolu sérieux na noonu nañu waxante dëgg c'est que bëgguma génn si sama mutisme boobu yaa ma ko bëgguma excité yaa ngi may xaw a excité si côté boobu nag daf bëri yoo xam ni mënu ma ko wax en parce que man maa jël décision yi du ma ci wax dama mais bu ñu demee bay endossé waa wàllu ba bokk ak waa yeewi te ñoom ñoo doon xeex démb bay reyante parce que Ablaye Wade mu li fi wax moo tax ñu bëri dee moo tax Mamadou Diop dee moo tax ñeneen ak ñeneen dee tey jii nii moom mooy ànd ak waa yeewi boobu noonu ni dañuy jéem a yeewi ñoom loolu noonu xam nga sérieux bi nañu waxante dëgg ndax ñu bi xam nga loolu y a des choses yoo xam man bàyyi laal ma kalu sama kalu rek jàpp li ma xam yëpp toog jàpp sama ñaam d'accord mais man li ma lay waxaat lu man koy waxaat du gàcce du rus du si lenn si wax ni man Idrissa Seck c'est un grand frère du ma koy revendiquer c'est un grand frère nu mu munti mel lu ko Sénégal yi munti wax aroon kii c'est un grand frère pour moi bokkuma nag réew mi bokkuma benn bokk yaakaar bokkuma Pastef bokkuma benn parti je suis di xaar nag loo xam ni constitution bi jar na jug xeexal dëggantaan jaay ñu tam jëflante ko ñoom instant yi nii gars yi ñuy kasarol nii ginnaaw suba léegi ñu leneen amaat ñu ñoo ngi xaar moment yooyu mais nag man dama nekkaat si tali bi nii di wàccaa di damay dem ni xeexaat nii pour la man maa fi daakoon xeex léegi da nga dégg kenn ku jël téléphone sax woo dari pib san eh bii nu mu demee maa la kii koo si woo du jël téléphone am ñooñu laay àndal la nañu est ce que loolu du ma dalaat du ma ànd ak kenn xeexuluma kenn sama bopp laay toog sama gaale samay doom te sama soxna ñu toog lekk suñu coob xam naan suñu ataaya tëdd na la xeexuma kenn ku bëgg a xeex na nga dem xeex parce que après ñoom ñooy seddowaat gâteau bi man dama ko gëm parce que bërki démb loolu la ñu Macky Sall def loolu loolu la ñu waa M23 def loolu j'ai un ami qui s'appelle Abdou Cissé Mbaye il a il fait partie il faisait partie des 50 personnes yoo xam ne Macky bokkoon nañ si du ñoon wër caravane bi doon wër Sénégal pour fal Macky c'était les jeunes de l'opposition tey jii mu da ngay woo nit sax dalay tayal wuyu ay ñoo xam ni démb dañu doon ndaw si sa ginnaaw di jàpp sa mayo ma takk numéro 10 bi nekk Sadio Mané man jiitu dem jël dem jël Benno ak Tanor dem jël suñu feuille de route dem jël suñu itinéraire dem jël lépp jox ko gars yi parce que maa doon coordinateur de la mobilisation citoyenne ak Benno ak Tanor ma respecté ko trop paawu rek laa bëgg si politique amul beneen koo xam ni mu ngi may inspiré si politique ku dul Ousmane Tanor boo xam ni du dafa mën nitam du xaar sax mën ko dama am soxla loolu mooy ànd ak nit koy am seetlu ci moom bu fekkee leader nga da ngay am seetlu ci moom est-ce que leader dem nañ seeti gis nga tey ji ñu wane leen dem nañ seeti ñi ñi dee ñi dee ñi dee bërki dem mais dinañ dinañ la mais waruñu xaar sax ñooy dinañ ñoom ñoo foroon jiitu nañu waxante dëgg mais il se préoccupe pas pas de ça il se préoccupe actuellement de la liberté de Déthié qui a qui doit être libéré normalement man je le réclame dañ ko war a bàyyi parce que waruñu salfaañe yoon parce que c'est un député femme jaara dañ ko war a libéré waruñu salfaañe loolu yoon la comme na Ahmed Aidara deful dara am na droit dox dem meereem wala dañ ko salfaañe ak yeneen ak yeneen mais dama ne la malgré tout sa man je reste dans mon coin marché lu ma kenn xeexalu ma kenn ku ma si mere nag yaa may tooñ parce que am naa si sama droit comprendre léegi bu ñu demee nag ba Macky Sall bu ko forcé nañ day def troisième mandat boobaa nag moom kuñ ci bëmax ñu jël waaw mais nii dama leen dama leen bàyyi ñoom mun nañ régler seen problème billaahi mun nañ régler seen problème ñoomi ñoomi neen la ku si dee itam yaay perte sa bakkan ku si dee tey ji nii tey ji nii ma am ay doom sama waa ji may mun a dama am ay doom ay parental bugguma kenn yar leen maa leen bëgg a yaral sama bopp du ma ko def je le ferai je dama am sax sëriñ dama am kilifa sama sëriñ ma gisee si yu ñàkk fayda yooyu lan xeex kan ban kan moo dàq xeexal Sénégal ke sëriñ si wala waa jàngu bi ñoom rek a fii xeexal Sénégal ñoom ñooy wax nit ñi bu leen sàcc bu leen fen bu leen def li bu leen def laa bu leen def li politiciens yi si lu mu lay woo woowu la ci dara waaw si tous lolo woowul tey jii essence baa ngi cher gis nga leen ñu wax si kenn waxu ci ils se préoccupent de leur liste liste yi lañ dund gee ngi cher ñun yëg nañ ko est que wax nañ ci nawetaan baa nawet gaa ngi nii dégg leen ñu wax ci ñu ni ciy wax grand peut-être yow. wax kenn yow yaa leen déggul rek. non man maa ngi nii à longueur de journée yow si télé laa di longueur de journée damay zappé rek. politique rek la ñuy wax même yéen journalistes yi si politique rek ngeen di wax dama toog ba sànq ma ni mais may seetaan te euh, Sen TV euh, Sen TV ma tigi ki dem Walf même chose dem fii même chose set même chose kii mais mais man demee nii. mais lii rek la ñuy wax te nit ñaa ngi sonn feebar affaire dama noonu kër kër sibiru sibiru bi léegi mu ñëw parce que pali euh, euh, euh, taw baa ngi ñëw defuñu benn activité mais y a beaucoup de choses qui devraient se ñun ñu dem mais ci bitim réew noonu la ñuy def ñii ñii di def lii ñuy def lee mais ñëpp bu ñu bëggee nekk que dañu leen di woo si ay wàcc ngeen xeex bu ñu xeexee kan la ñuy xeexal ëllëg ñoo ñuy xeexal tey ji ñooy nekkaat même chose man ñaata yoon laa fi xeex depuis Abdou Diouf depuis Ablaye Wade Ablaye Wade ñoo ko jëli joon aéroport bi mu bañee ñëw Sénégal gars yi forcé par force mu ñëw Sénégal mu ñëw def fi ay mandat def li fi am yëpp foofu la commencé li fi am yëpp nee nañ defar na Sénégal dëgg la si ay infrastructure li fi am yëpp si ay magu li fi am yëpp si escroquerie li fi am yëpp si ay ay buux ay ay ay ay yooyu yëpp si Ablaye Wade la commencé nañ waxante dëgg yi ngay gis ñu leen luweel ay ay appartement tey jii fu nekk ay moo jur ay rangu loolu yëpp loolu leen jur non dañu waxtaan loolu ay dëgg loolu looloo fi indi yooyu yëpp si Ablaye Wade la tàmbalee nañ waxante dëgg sunu maam la def na fii mais tamit moom ministre yeeg ñi mu àndaloon ñun ñëpp dañ doon def bi ñu leen épinglé après Macky Sall lan la def ñëpp demaat si moom mu bàyyi leen. mais yaa ngi tooñ rangu de <laughs> ma non man je connais même pas rangu dama koy lire rek si si journée mais bëggee expliquer gis nga li xew Sénégal yëpp may mun a bugguma bugguma moomu génn daal li ma xam yëpp toog di ko ji dama bëgg rek kàllu sama kàllu moo tax bi nga ma laajee dama lay noonu faral ma kenn maa ngi toog jàpp sama ñaam. d'accord. mais euh, sant yàlla. Euh, euh, dernière question bi grand say projet ko mooy lan. man sama projet nee naa la ko au début de l' émission waxoon naa la ni la j'ai un projet de euh, j'ai projet boo xam ni bon benn bi sax léegi mu commencé mu sera Thiès ay ay ay série de de de de mini marché lay doon yu amaale gargote si biir quoi et puis c'est des trucs yoo xam ni lépp day nekk bio lépp day nekk naturel. affaire demee noonu quoi donc loolu mooy sama kii parce que bi ma nekkee États-Unis j'ai eu la chance de de travailler dans une université bu tudd Haverford College so après am na chance wu tamit liggéey ak ay société bëri yoo xam ni si wàllu boobu la ñuy mooy food safety ak lekk food service donc dama si expérience boo xam ne dama si bëgg a créer ay emploi fii au Sénégal et puis je crois que projet yu mel noonu def naa lu ku si nekk war a def mais quand au Sénégal on sait que ni y a des yoo xam ne ñooy gérer moyenne entreprise bi mënoo leen jot te démb yéen a doon toog matin midi soir da ngay woote ba sonn bind message bind lettre duñ la tontu duñ la moo ko y a problème problèmes au Sénégal ñun on demande pas de l'argent on demande d'être subventionné par l'État du Sénégal boo xam ne suñu xaalis la parce que n'oubliez pas que ba léegi ñoo ngi fay droit d'auteur heure bu ñu ko fayee heure bu ñu tegee suñu son ñoo ngi jox état bi xaalis donc on mérite d'être franchement soutenu si ay projet yoo xam ne ñu bëri nañ si mën a liggéey et dama leen jox dama benn message mooy ñooñu nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun démb nañu woo ñu mel ni man wala si sa Mbaye ñu toog wax ak ñoom parce que tamit il est temps que ñu def ay retrouvailles xool bilan bi quoi sa fait 10 ans nañ xool bilan bi entre ñun jeunes yooyu doon waxal Macky Sall nañ def bilan bi entre ñun xool lan nañ fi def lu baax ak lu bon dinañ servir parce que ëllëg ñun ñoo nar a réew mi Sénégal ngi lay remercier waaw xam nañ ni que doo da nga wàññi sa tànk lu bëri ci presse bi donc euh, on on te remercie ci opportunité bi nga ñu may waxtaan ak yow sénégalais yi namoon nañ la euh, jeune talent yi tamit jeune rappeurs yi namoon nañ la jeunesse bi moon na la donc merci beaucoup grand. merci beaucoup dinaa ñëwaat nag. <laughs> incha allah naa génn wax nag mais dafa jotagul rek. incha merci. <laughs>